Info 7 TV Touba Mbacké xam ngeen ni tey la lundi 19 août 2024 ñu dox jëm ci màggal mën nañ ne màggal gi ñëw na ba pare ñu jóge corniche su Madiana jëm fi nga xam ne mooy grande mosquée bu Touba yéen a ngi seen grande mosquée nii waaw kon mi ngi nii décor bi tey ci suba gi nii la mel Touba Mbacké euh, Info TV fas yéene ànd ak yéen dara bañ leen ump ci liy xew ci màggal gi ay reportage ay émission lépp rek ci waajtaayu màggal Touba édition 2024 kon mi kon mi ngi nii grande mosquée bu Touba ngeen di jàkkaarloo nii ndeysaan soroor bi Lamp Fall yéen a ngi seen nii oto yee ngi dem di dikk kon Touba Mbacké Info 7 TV mi ngi nii décor bi commencé changé ndànk ndànk ah kon grande mosquée ngeen di jàkkaarloo nii ah fii moo jëm résidence Cheikhul Khadim oto yaa ngi dem di ñëw xasida yi mi ngi bir kon yéen a ngi koy seen décoru Touba instant bi nii la mel grande mosquée ñetti fan kot dox ci màggal bi yéen a ngi seen nii décor bi Info 7 TV yéen a koy gis nii fii mooy grande mosquée fii moo jëm Daaru san xam ngeen ne dafa taw démb moo tax yéen a ngi seen ndox yi nii waaw fii moo jëm kër Serigne Saliou kër Serigne Mourtala kër Serigne Abdou Khadir foofu moo romb kër Serigne Saliou kon ba tey Info 7 TV fii moo jëm Daaru Xuddoos waa Daaru Khoudoss station ba booy jëm fu mel ni fi nga xam ni mooy Aliya Asalem ya ba gaaraasu Daaru fii ngay jaar kon Info 7 TV dara leen ump ci grande magal Touba édition 2024 Ilaas Mor Diouf Madiang Ciss ak équipe bu Info TV bi yëpp allazi fi kulli sahrin safar hamani hala fi kulli sahrin wa fi safar هماني هلا ماهل ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي ذبر هماني ألا ماهل ما الأبس والسفر